Merci beaucoup à la régie, Absa, la revue de presse. Oui, Marceline, nous démarrons la revue de presse comme de coutume avec le site disport.sn qui nous informe que le défenseur sénégalais a inscrit son cinquième but de la saison ce dimanche lors de la dixième journée du championnat tchèque offrant une contribution précieuse à la victoire du Slavia Prague face au Bohémien Prague. Grâce à cette nouvelle réalisation, Djouf confirme son efficacité devant les buts en totalisant désormais cinq buts et une passe décisive en seulement cette apparition cette saison. Son apport offensif a permis au Slavia de consolider sa place en haut du classement, renforçant ainsi ses ambitions pour le titre. Toujours avec les performances des Lions ce week-end, l'international sénégalais Pape Matarsar a une nouvelle fois démontré son talent en délivrant une passe décisive lors de la large victoire des Spurs face à Manchester United 3 buts à 0 dans le cadre de la huitième journée deux Premier League, nous révèle toujours le site disport.sn. Entrée en jeu à la 77e minute à la place de James Madison, le milieu sénégalais n'a pas tardé à se montrer décisif sur un corner parfaitement travaillé. Sa déviation subtile a trouvé Dominique Solanke qui n'a pas hésité à enfoncer le clou en inscrivant le troisième but de la soirée. Grâce à cette prestation, Tottenham s'impose avec autorité à Old Trafford, confirmant sa dynamique positive. Pamatarsar continue ainsi d'impressionner et de s'affirmer comme un atout majeur pour les Spurs cette saison avec une implication directe dans ce succès retentissant malgré son début de saison compliqué. Le journal sportif Record fait sa une sur la victoire des Lionceaux. Le Sénégal a remporté la finale du tournoi de Lufa e U20 Liberia 2024. Les Lionceaux ont dicté leur loi à Sierra Leone 2 0 au Samuel Kenyon Doe Stadium de Monrovia. Ils réussissent la passe de 2 et s'offrent ainsi un troisième trophée en cinq éditions de ce tournoi sous-régional qualificatif à la canne de la catégorie. Le patron de la défense, Khalidou Koulibaly, s'est également illustré dans son club Al-Hilal, nous informe toujours record. Comme à son habitude, Al-Hilal de Khalidou Koulibaly a gagné lors de la cinquième journée de Saudi Pro League. Les Bleus champions en titre ont largement dominé Al-Holod 4 buts à 2 avec un but du capitaine des Lions, son premier de la saison. Impérial en défense centrale, le Rock a joué tout le match. Al-Hilal est leader avec 15 points, soit 5 victoires en autant de matchs. Nous terminons, Marceline, avec euh, le journal L'Obs qui est revenu sur le face-to-face de Modulo et Cite. Les adversaires du combat royal prévu le 24 novembre prochain ont déjà déclenché les hostilités en attendant les coups. Malgré les échanges de civilité, le roc des parcelles et le pensionnaire de l'écurie Lansar ne compte pas se faire du cadeau le 24 novembre prochain à l'arène nationale de Pékin. Voilà, Marceline, nous avons fait euh, le tour d'horizon de la presse sportive comme nous avons l'habitude de le faire. N'oubliez pas, fidèles téléspectateurs, de consulter notre site disport.sn, l'abreuvoir du football sénégalais. N'oubliez pas également de vous abonner sur toutes nos différentes plateformes digitales pour ne rater aucune de nos publications. Marceline. Merci beaucoup pour ce magnifique petit déjeuner qui est la revue de presse. Merci beaucoup à toi, ma magnifique journaliste. Je te donne rendez-vous tout à l'heure dans Actu Inter parce que Hamdani, réunion rédaction, Inch'Allah, merci beaucoup Marceline. Euh, réel plaisir de partager le plateau avec vous. Donc, may téléspectateurs yi dig à 13h inchallah pour Actu Nous devons def des matchs qui ont eu ce week-end. D'accord. Et toi, tu nous donnes rendez-vous pour les téléspectateurs de Café t Sport demain à 8h30. Demain à 8h30 inchallah. Inchallah. Merci beaucoup à toi Absa Et eh oui, demain nous allons commencer à partir de 8h30 Mon horaire est bees yi nga xamante Desport TV nous nañ leen ko ñu wax ni dañuy suñu ñu euh, donc on va faire comme vous le voulez on va commencer encore plus tôt commence à 8h30 pour vous accompagner ngeen mën a xëy préparé wu sangu àndandoog ñun dañu seetaan ba ba ngeen di egg seen i bureau wala seen i école wala seen i bërëbu liggéeyukaay en général fépp fu ngeen mënti nekk rek ngeen di àndandoog ñun di safoo des sports di safoo café des sports ñu jox leen la meilleure des matinales pour vous permettre de passer une très bonne journée donc euh, Absa saw lii la ma indiloon tey ci li nga xamante ne di revue de presse manique. ñu gis euh, Absa wax ma li nga xamante ne di performance Lyon yëpp euh, ci week-end bi donc Lyon équipe nationale je pense que des sports da leen di topp de très près parce que équipe nationale nationale muy équipe l'arbre qui cache la forêt certes mais euh, ils représentent toute une nation tout le Sénégal il faut qu'on les suive de très près Nous avons ay échéances yi en octobre échéance contre Malawi donc on nga gisee performance performances bon je pense actuellement bon ci ni ñu leen suivre ñoom performance performances au niveau de notre club et c'est une bonne chose parce que comme on dirait les ligues ñuy les ci club euh, au niveau de l'équipe nationale donc euh, jusque niveau comme on dit des fois aussi joueurs yi mun def performances mais man là il faral di wax souvent. <laughs> Mhm. mais en équipe nationale c'est une autre réalité. Mhm. parce que t'es le plus souvent registre ci registre football ñuy clébi yi. Mhm. au niveau de l'équipe nationale boo leen peut ci registre boobu da ngay gis moo équipe nationale actuellement bu ngeen seetloo les derniers matchs. boy da ngay gis ñu xam football il joue bien hein. mais en fin de compte dans am finalité parce que finalité football là la ngay dugal ay but pour mën gagner donc mais c'est un blocage ba nga xamné bon ay limite la nga xamné peut-être tay par rapport à notre système de jeu bon du ma dugg nag ci côté <laughs> technique bi trop <laughs> mais ils font des performances au niveau de leur club mais bu ñëw équipe nationale dañuy sentir ni y a un blocage donc aussi il faut que ñu ñu xaw ci mhm. taxaw fofu def ci ay jàngal effectivement euh, tu as mhm. parfaitement raison Mbadika je pense que finalité bi mooy dugal ay but waaye finalité bi aussi mooy euh, contre ay but ndax but ba nar a ñëw sa cas moom <laughs> il faut nga koy contre donc euh, réalité bi am club on le remarque partout du à ak réalité équipe nationale et je pense que lolu c'est un constat général mais tu lu def gëna def performance club je pense que fay répercuter ci équipe nationale merci beaucoup à toi Mbagnick euh, donc euh, Alaaji gis nga li nga xamante mom moom ñu may mhm. vraiment ci revue de presse très rapidement parce que waxtaan tay tey dafa gudd xamna ni ci ponk boobu rek lañu yëm performance des lieux du week-end noo d'abord di leen euh, féliciter rek Pape Matar Sarr nekk koo Sénégal la Euh, dégg naa sax Boulaye Dia moom tamit euh, wane na boppam ci weekend bi kon euh, ku mel ni Kalidou yi nga xamante ni moo nekk sunu ak central su ñu fekkee ne ñu ngi def ay résultats dañuy nekk ñoo xamante ni ñun supporters yi dañuy am confiance pour suñu suñu équipe nationale mhm. kon nag loolu nga xam ne moom lañ def noonu yàlla na yàlla def mu gën a jëm kanam mhm. pour ñu mën a koo indiwaat Sénégal su suñu wootee mhm. c'est très important merci beaucoup à toi Aladji Cheikh Sall et je termine par Balaw Sané mu wax moom moom naka la gisee performance des Lions du week-end comme je l'ai dit aux autres très rapidement parce que tey waxtaan bi dafa nar a guddul moo tax ma bëgg ñu tàmbale foofu waaw c'est c'est déjà encourageant de voir nos nos, nos jeunes joueurs sax je les je vais les appeler comme ça briller sur à la face de, l'Europe parce que tey jii et Malik Diouf il incarne l'avenir parce que quoi que l'on puisse dire euh, il est en train de faire quelque chose de grand au niveau de la Tchécoslovaquie parce que tu dit 5 5 buts en tant que défenseur en de passe décisive qui équipe que premier donc c'est à saluer donc l'utilisation de nos joueurs en club et, mhm. en sélection a l'arbre qui cache la la forêt mhm. mais moi je reste persuadé que l'avenir c'est la c'est la c'est la jeunesse as mhm. on a des problèmes au niveau de nos arrières latéraux Fadiga le fils de Kalidou Fadiga qui joue euh, au niveau de la Belgique dugal 3 buts en 9 mm. matchs Dembrek rek dugalaat na mm-hmm. aussi donc dafa jar ñun ñi nga xamné dañu jël ay joueurs yo xamné ne militaire di leen joué loolu ay piston wala arrière mm-hmm. am ko xamné mi ngi fi mm-hmm. nek sénégalais am sélection demal jëli ko Belgique benen bi moy en attaque boulay est en train de faire feu et flamme avec l'Algérie Chérif Ndiaye est en train de faire feu et flamme Pape Matar sar Lamine Camara donc man je reste persuadé Marceline parce que temps def gàtt mm. l'avenir c'est la jeunesse waaye dina ci bàyyi xel waaw waaw ngañ na ci bàyyi xel waaw na ci bàyyi xel. waaw comme journée vérité la nañ ko wax dëgg. non non ngañ dina déglu parce que bii mhm. passé contre Burundi. Malawi déglu na. Mhm. donc mhm. xel ci sénégalais yi. parce que am na équipe pour mun a gañ ku nekk. kan mooy ngañ Demba. Ah. ok donc léegi moom le 11. dañuy joué ak Malawi. ak le 15. le 4 vendredi dina woowaat liste bi donc bu le 4 ñu ngi xalaat ne gis nañ gis euh, nu mu tudd <coughs> Noa Fadiga. ñu xaar dañu gis Boulaye Dia. ak ñi nga xam ne ñu ngi fi woon ñu continuer ak ñoom parce que moment foog mu ñëw mm-hmm. parce que on n'a pas d'arrière jot na de jot nañu woo xale yi ah, may leen seen chance vraiment pour ñu mën a prouver ñoom itam pour ñu mën a dalal suñu xel par rapport à la parce que ñu leen di gis ñuy cuuc càpp di coof di génnaat loolu je pense que duñu mën a may euh, sénégalais ñu am regard ci euh, xale yooyu nga xamante ne ibri à l'échelle internationale et pourtant on les convoque en sélection ñu leen di may ay cinq minutes de jeu je pense que war nañ leen gën a may temps euh, au moins une deuxième période bu xaw a gudd pour permettre aux sénégalais de voir la capacité de ces joueurs qui évoluent à l'échelle internationale merci beaucoup à toi Malon Sané Malang Aliou 9TV nee na yow le nouveau sélectionneur amiin yaa rabbi ay sélectionneur bu naa la wax nag <laughs> sélectionneur bu naa la wax yàlla baax na yàlla baax nee na yow yaay alors merci beaucoup à vous. alors ma dem euh, nuyu rek après Absa Sow keneen koo xamante vraiment sama invité la tay sur ce plateau sama xarit la nag gëj nañ gise maak moom vraiment yag na bi ñu xalé ñoo doon fowandoo euh, ci buntu kër gi mais dañu réro de vue ma ñëwaat gis ko ci plateau mu tudd góor gi étudiant góor gi nuyu naa la bienvenue sur ce plateau aladi bu reetaan góor gi nuyu naa la. <laughs> waaw ngi lay fay ça va euh, di nuyu internet yépp ñu ñuy seetaan donc à travers le Sénégal et la diaspora donc di nuyu ñi ma ci plateau bi euh, di nuyu sama waa kër ñi ma bàyyi euh, bon ma soxna mais sama mag bu <laughs> rek soxna <laughs> voilà donc euh, di nuyu sama collègue de travail aussi. ñu nekkal sem Matar Seck. Mhm. di nuyu prof EPS ma mhm. kenn. di mhm. nuyu aussi di dire le président Gris ak euh, <coughs> képp kuy mbër rawatina sama waa écurie écurie Songane Gueye di nuyu maam ñaaw sama manager mhm. ak waa Tëngéej yëpp waaw bàyyi ma kenn. ñu ngi lay fay bu baax a baax góor gi étudiant vraiment euh, kon ñu nuyu magam bu jigéen kon ko mënul nuyu soxna ñun ñu ngi nuyu magam bu jigéen bu baax a baax. loolu garaaw ci ah. nit su tolloo ci war a am jabar amoo jabar amoo jabar soo duggee ci kër duñ la laaj ana soxna yi soo ko amul dañ naan la an say an sa faam. waaw doo nekk mag mukk. fekk amu ko jabar mukk bilaay te te ngay dem ñu ne la nuyu ma soxna si nga war a wëlbatiku ne am amaguma soxna. soo amee soxna kenn du la laajal paa ak mère góor gi utal madame grande sœur utal ñu ko ah <laughs> utalee suñu xarit nañu àndandoo def ko mission personnelle <laughs> jërëjëf ñu lay dalal bu baax ci plateau plateau bi bu ma fay jaaree aussi di nuyu ñi ma fekk ci ligne bi merci beaucoup à toi euh, Baye Fred Sène nee na de milieu bi baax na <laughs> baax na Baye Fred suba naa ko defaat jërëjëf kontaan naa ci yow Barham nuy na la euh, vice président fan club des sports nuy na la di la jaajëfal bu baxa bax yow ak maman arrête ma len di nuyu di len ziar Nez Dia merci beaucoup à toi Nez nee na ngeen vraiment très bon message Nez wax la ñu liké bu baxa bax baax abonné wu di aimer di partager merci beaucoup aussi à toi mon ami depuis la France Eric Barrault merci d'être toujours fidèle à Café des Sports j'espère que tu es au courant demain Café des Sports va commencer à partir de 8h30 donc on va commencer. Euh, euh, à partir de demain à euh, commencer l'émission matinale préférée votre émission matinale c'est Café des Sports à partir de 8h30 soyez au rendez-vous euh, moussa Kane nous n'allons pas président Diop Doré président des fan club de des sports maa ngi lay jox yow itam donc 9TV ziar naa la yow sama xarit donc Alimatou Dia femme chérie mënuma laa faté, vraiment kii di nu mu Barham nee na ku fi góor gi étudiant indi euh, bësal jam mais yow bàyyi bàyyi baax xam yow lu tax café de sports indiw la fi góor gi étudiant di la fi indi doo génn ci li nga nekk bësal jam nag nga aimé nga abonné wu nga partagé ah bés ni ki tey euh, bëgg naa góor gi étudiant nga wax ko mu aimé parce que café de sports mu émission matinale préférée di regrouper les plus disciplines sportives war ngaa wax ak ñoom nag ñi bàyyi la ñuy def di bàyyi ségrégation non nañu nañu nañu abonné te partagé ah am solo la la góor gi dëgg le DG Mbaye mhm. waaw vraiment bokk na si ñu ma lancé mhm. damay soog a tàmbali quoi mhm. waaw ñoom moom ku ci mel ni moom ak Malick Thiandou fu ma toog dama koy wax donc yàgg nañ maa taxaw bokk na si ñu ma njëkk invité plateau bokk na si ñu ma njëkk tàllal micro ndeysaan vraiment di ko sant di ko gërëm bu baax a baax di wax gars yi na ñëpp abonné ci euh, chaîne bi macha allah dégg ngeen lu mu leen wax donc yéen ñi fi euh, góor gi étudiant indi abonné leen ngeen aimé ngeen partagé